du TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. Alhamdulillah, rabbil alamin mbokki jullit yi noo ngi magal allah taala wa tabarak. Diko ko diko borom bi jéggal ñu sunuy njuumte jéggal ñu sunuy rëcc rëcc noo ngi julli tey salmal ci ar rasulu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaanal jàmm moom ak i sahabaam ak taabiina lahu bi ihsanin ila yawmi ddin mbokki julli di sunu xutba tey mi ngi tënku ci min fawaidil yan njëriñ lañu mën a wittee ci nattu yi ñu yàllay teg xam ngeen ni nattu bu ñu ko waxee neexut waaye bu ci nekk am na lu ko tax a jóg te benn bu ci nekk ci nattu yi dafay dellu ci njëriñal jaam bi muy min fawaidil ibtila mbokk jullit yi àdduna bii ñu nekk day kër la boo xam ni kërug nattu la kërug examen la borom bi day natt ku nekk ci jaam ñi fi nekk di la examiner <coughs> waxtu wu nekk <coughs> di xool sa ngëm ndax ngëm li lu dëggu la walla ngëm li looy wax rekk la amul kenn nag kuy dund ci kaw suuf mucc ci ay nattu nattu nag ñaar la am na nattu bu neex moom la nit ñi gën a àttan waaye am na nattu bu naqari nattu bu naqari lu bari ci nit yi nga xam ni ñoo jagleel seen bopp yàlla ci ñooñu lay faral di dem mu mel ni yonent yi saxaaba yi nitu yàlla yi ak ni ñuy waxee waliyu yàlla yu baax yi nga xam ne dañoo bëgg a jege seen borom ndax yonent bi sallallahu alayhi wa ne ashaddu balaan il ambiya fal amsal thumma al amsal nee na ñi gën a metti natt ci kaw suuf mooy yonent yi ak ñi nga xam dañoo bëgg jël mission yi yonent jëloon natt yuy metti yi nag mbokk ay dars la yuy jàngal nit natt yu neex yi tamit ay dars la yuy jàngal nit léeg-léeg nga wax natt yu neex ñu bari duñ ko xam ndax ñu bari ci nit ñi dañoo jàpp ne nattu moom daa war a metti rekk waaye alal mën na ñëw nekk nattu jigéen mën na ñëw nekk nattu bakkan mën naa nekk nattu léeg-léeg yàlla nattoo nit ki lu bëgg fitnaal ko ca waaye léeg-léeg mu nattoo nit lu mu fitnaal ko mbokk jullit yi li ñuy njëkk jàng <coughs> ci bind bi mooy li yaalama kullun minna annahu ma min bala'in nazala illa bi danb amul benn nattu buy wàcc ci kaw jaam bi lu dul bàkkaar na digganteem ak boroomam bàkkaar boo xam ne xam na ko walla xamu ko su loolu ñëwee nekk ab bàkkaar rek natt bi la yàlla njëkk a teg mooy punition lay doon ngir nga jàngataat sa bopp war a def autocritique bokk na ci xikma yi nekk ci natt di wàcc ci doomu aadama mooy day nekk takfiiran lil xataaya wa mexwan di sayyiaat kon mbokk yi nattu léeg-léeg day ñëw di kaffaara say bakkaar say ñaawteef di ko fóot di ko raxas kon loolu moom moo koy indi ndeke bu ñëwee dafa ñëw ngir fóot say bakkaar kon nattu lu mu rëy rëy jàppal ni say bakkaar tollu na noona te moom nattu bi moo mën a ñëw jaamaarloog moom ngir fóot ko ba mu set mu mel ni rek ak weñ bu xomaat soo ko bëggoon a defar ba mu rafet il faut nga jël liim nga di ko xoos ni nga koy xoosee day metti ci weñ bi waaye bu demee ba set rekk ku ko xool da koy bëgg mu mel ni or suy génn dafay tilim ñaaw waaye tilim ñaaw boobu li muy tekki mooy bàkkaar ngir mu war a set il faut tëgg bi da koy dugal ci safara bu tàng di ko lakk di wëlbati di fëgg di xoos di dóor ba mu rafet su ko defee bu ko génnee bu waxee prix kenn du ñemee waxaale ndax or bi jaar na ci natt yu bari balaa muy rafet kon yow jullit bi balaa ngaa taaru bañ di la naw il faut nga jaar ci ay nattu ba génn bo xolé échelon yonenti nonu la len yàlla tege moy ñi gën ci kaw suuf waye amul ku ci amul nat bu la nexé del yonenti yàlla nuux ba ci yonenti yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam kenn kenn muccul ci nattu motax kon kon da fay ñëw nek di xex ak say bàkkaar waye nek lu lay dindil ay ñaawteef loolu nag alimahu man alimah wa jahilahu man jahila ñi koy xam bariwut waaye ñi ko xam su nattu ñëwee dañuy sant yàlla waaye du ñu nekk di naqarlu di tiit di fitnawu ba sa àdduna bëgg tukki philosophie bi ngay njëkk am ci nattu yàlla mooy jàppal ni yàlla moo la ko teg moo ko mën a teggi su loolu amee rek di nga daal di am expérience boo mën a muñee waaye bu ñëwee nga bëgg wax ni lii pour lan la lan moo tax mu dal ma pourquoi pourquoi pourquoi yooyu yëpp doo am réponse am question yëpp doo am réponse am ndax sa borom moo ko jël sa borom mënoon na bi ngay def bàkkaar bi mu siiwal la nga feeñ ñu gis ko ak ni ñu la nawee ni ñu la yaakaaree ñëpp dar seen gémmiñ dañuy rus am gàcce waaye bàkkaar boobu borom bi nëbbal la ko fóotalee la ko nattu ci kanamu jaam ñi ngir yëkkatee la ko moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمن في جسده أو في ماله أو في ولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة رواه أحمد يرنت بني بلا دودن دي دال جلد بغور ولا جلد بجيجين موخم تي يرمم كم لدالون أيوب مفابر فكي أتأجرم أو في ماله wala yàlla nattu ci alal loolu it dal na ayub ndax moo ëppoon alal ci dëkk bi ëppoon fi taar waaye dem na ba taaram dem dem na ba alalam dem aw fii waladihi wala ci ay doomam comme ni yàlla nattoo yonent yàlla yaqub ci ay doomam nee na natt yooyu nag benn bu ci nekk jàppee ko nattu léeg-léeg natt bi sa kaw lay dal moo gën a oyof mu dal sa alal su dalee sa alal boo dee ku bëgg alal soo defut ndànk natt bi dana la jural fitna ndax dëgg nga ni da nga chercher alal bi yàlla joxoon ma lu tax yàlla jël ko benn yaa ngi commencé ñànki lu tax yàlla def nangam lu tax yàlla def nangam mu jaral la nga dugg ci njabar commencé ñàkk sa ngëm nga dugg ci yaakaar lu dul dëgg commencé ñàkk sa ngëm loolu fitna lay mujj doon wala sax mu daa di dal sa doom mu nekk lu metti yàlla natt la ci sa doom loola neexul nga jekki sa doom nekk saay-saay nga bëgg xar suuf ngir bugg koo defar mu sa jabar nekk saay-saay nga bëgg xar suuf ngir bugg koo defar mu sa doom nekk ci loo xamante ne biir na la ni lii yow nekkoo ci lii yow woote woo ci ñaata yoon la ko yàlla nattoo nit ñu baax ñi xamut nag li ñuy wax mooy làmmiñam bu réy bi fu mu toll naan yàlla nee na di wax tey doomam mu ngi nii mënulu ko dara fekk déedéet doom kenn du ko mënal dara yàlla moo lay suturaal moo tax yonent yàlla nuux bi muy daawa di woote nit ñaa ngi gëm mais ki ko gën a jege nekk dagg daggiti xolam di doomam gëmul fan la mujj yaa bu na yarkam maana ay sama doom dimbale ma nga ñëw ànd ak man ñu dem doom ji ne ko déet papa man mënuma ànd ak yow ndax gëmuma la waa lan moo gën a metti loolu nuux di ko jooy di ko jooy di ko jooy ba ni yàlla la nga ma digoon yàlla ne ko nuux mu ne am na ko na mujj tey nga di ma ñaan ci doom joo xam ni saay-saay la sa doom la ci butit mais du sa doom ci ngëm kon nag lii dal ñeneen ñi da koy dal danaa ko lakk na may lakkee ay moroomam yooyu yëpp mbokk yi ay natt la yoo xam ne nuux jooy muñ waaye xam na ne munu ci dara mu dellu ginnaaw nee na noonu la yàllay tegee nattu jaam bi mu di ko muñ di sant yàlla dana dem a dem ba bu natt bi wàcc day fekk ay bàkkaaram jeex tak tak tak tak boo tax ñi xam nattu su leen nattu dalee dañuy sant yàlla te natt ci ku baax buntu la bu lay jegeloo yàlla buntu la bu lay yokkuloo effort dina la ñaanloo dina la gëmloo dina la julliloo dina la wéetalloo yàlla dina la delluloo ci yàlla moo tax kon ñu yëpp boo xoolee faveur yi mu am yu am solo la mbokk yi jaam bi dina nekk ci manzila bu kawe bu ko yàllay defal mu nekk koo xam ni yàlla yëkkaltil yëkkatil na ko daraja boo xam ni daraja bi mu war a àgg maanaam ay échelon la ay escalier dem na ba war a àgg ci étape boo xamante ne bu kawe la te ay jaamu yàlla munu ko fa àggale xam nga jaamu yàlla yi ñuy jaamu yàlla daf ñuy yëkkati julli yi woor yi saraxa yi daawa yi woote yi def yu baax da lay yëkkati ay échelon par échelon am na étape boo xam ne bu fa àggee il faut nga am julli gu doy gu mat gu ànd ak ragal yàlla bu mën a tax nga yëg su fekkee say julli matewul loolu say woor matewul loolu say sarax matewul loolu sa jëf yu baax matewul loolu parce que yaa ngi def selon ni nga mën ndax laa yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha yàlla tegul nit lu mu mënul comme sa jëf yi nga war a jëf pour mu yëkkati la jëf yooyu dafa manqué te yàlla xam na ni li tax nga war a àgg da ngaa war a àgg fii ndax programme na ko waaye sa jëf yi la war a puus dafa mel ni oto la boo xam ne amut doole attanul tonnage bi nga war a yenu bi nga war a yóbbu oto bi àttanu ko bu dee ci àdduna il faut nga jéem a xool oto boo xam ne tonnage bi da koy attan léegi nag borom bi xam na ne la la koy jàllale léegi nekkatul ci ay jëf yu baax yoo mën a am mais natt bu metti mooy mën a ñëw yéegal la foofu su ko defee yàlla da lay teg natt boobu natt boobu bu la ko yàlla tegee sa xol da nga jooy sa xel da nga naqarlu say xalaat dana metti moo tax natt day ñëw rek nga jeex tàkk fi saase natt day ñëw nga sa gis nit ñi mu mel ni ko teg sa bopp fekk tegoo ko sa bopp waaye yooyu mettit gi mu metti diisaay bi mu dis ba di la yow ci yàlla moo la puus nga àgg ci beneen daraja moo tax jaamu yàlla yi gën a kawe yàlla da leen a teg nattu pour ñu àgg def na ko yonent bi sallallahu alayhi wa def na ko yuusuf alayhi ci jigéen def na ko ayub ci feebar def na ko ibrahim ci ñu sànni ko ci safara def na ko yonent bu nekk yàlla tegal na ko piège nattu boo xam ni subhaanallah nattu gënu koo rëy yonent yàlla muusa yàlla teg na ko ko waaw bu yàlla tànnee ñi baax teg leen nattu yooyee waa ñun fi ñu jëm kon loolu day nekk benn bind bu ñuy jàngat mbokk natt bu la dal liiral yonent yi balaa nga am vingt di nga dal ci koo xam ni am na bu mel ni ba nga am te mu ëpp ko lool am na bu mel ni ba am mu ëpp lool lool kon loolu da ko cay jàngatee nga xool ni natt bi lu mu mënti doon su dee ci wàllu jigéen la danga fekk yont yàlla yusuf yàlla nattu ko ci jigéen fu mujj maadallah innahu rabbi ahsana maswaay natt bi dal yusuf xam nga ni àggoo ci daraja boobu su dee kaso la mais yusuf la même chose xoolal kaso dugg na kaso bida sinin neuf ans yoo xam ne dañu koo tooñ su doon moo tooñ sax dugg kaso dana metti waaye dañu ko tooñ ba pare tëj ko booboo gën a metti maanaam jaay la doole tëj la su ko defee nag boo deful ndànk boo dee borom xadar sa xol du neex da ngay am naqar jamono bu nekk waaye fu mu la war a delloo xalaatal yonte yàlla yusuf dañu ko tuumaal ci jigéen yemul ci tuumaal ko ci jigéen deram yàqu ci dëkk bi ñépp yemu fa ñu dóoral ko ci kaso pour rien que rek justifier liñ ñi moo ko def ndax munuñ koo tëj sans pièce de justificatif léegi la àdduna tàmbali ñuy tëj nit ñu amul ci ci ñàkk benn justificatif waaye gis nga fexe nañ ba outil justificatif pour wane ni Yuusuf moo doon sàkku jabaru buur loolu pour mu jeex di sang Yuusuf ndek ci diire 9 ans la war a seetal bàkkaaru Yuusuf yépp yépp yépp yëpp jamono ba muy dem bay set ba nga xam ni natt bi jeex na manzila ba ko doon xaar ci wàllu àdduna day taxaw bi lay xaar ci wàllu àllaaxira taxaw ndeke manzila bi lay xaar ci wàllu àdduna mooy yëkkatiku dara ji moo tax boo jógee ci natt bi rek da ngay dem ci bële yëkkatiku dara ji bi yëkkatiku allahu akbar yàlla mooy xakim natt bi dafa jeex ci yuusuf jour ba mu jeexee ñu def procès bi bi ñu defee procès bi avocat yeeg ñépp taxaw ba ñu war a commencer débuter ndaw si defoon affaire bi ñëw ni al ana xas-xasal xaq ana allati raawattuhu léegi daal dëgg bi feeñ na man maa defoon yëf léegi luy njëriñu avocat léegi amatu fa benn njëriñ ndaw si ne man maa ko defoon maa sàkku yuusuf waaye yuusuf ku baax la yuusuf dafa bañ su toppoon bakkanam topp sam bakkan kon dana mooy boromam te bu moyee boromam ñàkk darajaam fa yàlla ñàkk ko fii ci àdduna waaye ku muñ la allahu akbar xool leen ginnaaw bi lu yàlla tegal yusuf moo tax bi ñuy xool ci dëkk bi di fal kilifa yi bokk na ci ñaña fal bokk na ci ñu jox ko mu nekk ministre de l'agriculture yemut ca buur bi ko fi tegoon def ko ministre buur bi dee ñépp na yusuf moo koy remplacé mu remplacé kon yàlla yëkkate ko darajay duniya yëkkatil ko darajay àllaaxira moo tax mbokk natt nu mu mënti am avec philosophie na nga ko ko jàngee nga dal moo tax borom bi ne wa nabduukum bi char wal xayri fitna wa ilayna turjaun danañ leen nattoo yu metti nattoo leen yu yomb waaye yépp fitna la mbokk yi bokk na ci njëriñu nattu ak fitna ndeke أن في البلاء تحقيقا لعبودية العبد لله رب العالمين بلا نتو داي دغل جام بي نك ميغي جامو برومام لول لاي دغل day dëggal ni yàlla reconnaître na yow ab jaamam nga ndax xam nga yàlla reconnaître ko am na solo mais yow nga nangu ko mu ëpp solo yow jaam bi nangu nga ni jaamu yàlla nga waaye yàlla nangul na la ko ba xool teg la loo xam ni xam na ni du tax nga saali mbokk yi loolu dafa dara sante yàlla kon bu la ko yàlla tegee da nga cay ni ah ndeke man kat yàlla mi ngi may bàyyi xel comme ni ko wolof di waxee gis ngeen sunu mag ñi dañ daan wax ni ku toog lu yàgg feebaroo dara dalu la dangay ngay jékki naan waaye yàlla lan laa la def yàlla xanaa da nga maa mere pour ñoom dañoo jàpp ni il faut ngay am nattu di yëg ni yàllaa ngi lay bàyyi xel ñu baal ma ci waxin bi yàlla subhanahu wa taala ngi lay sóor loolu day wane ni li nga amee nattu mu delloo la ci yàlla dalay lay delloo si wuuteeg waaja nga xam ni làmmiñam bu réy la yore man jullit la man damay jaamu yàlla man ku gëm yàlla laa man ku nangul yàlla laa loolu yomb na wax mais yalla amna façon examen bo xamni bo lako la ko <laughs> di nga xam ndax yow la wala du yow motax tax jarul nekk di wax maay waaja man ibadullah man damay naafila guddi man damay wor guddi jaruko bu examen bi ñëwee rek sa feuille de réussite di lañ xam ndax li ngay woote deug la wala déet kon mbir mu di question vantage mais jëf lay doon motax borom bi nee amna ci nit ñi ñaar koo xam ni dafay jaamu yàlla mu dëggu mën na koy bañ a wax sax waaye am na koo xam ni làmmiñam la yore di wax rek bu dara ñëwee rek ngeen xam wa min annaas man yaabudullaha ala xarf am na ñoo xam ne ci intérêt rek lañuy ñuy jaamoo yàlla bu poos yi diisee ñu julli jaamu yàlla am scooter am oto am lu ñu bëgg yëpp nekk ay jullit waaye il suffit que bi ñu sàcc ko wala ñu sàcc laadum bi wala sàcc poos bi ah, lu tax yàlla seetaan ba ñu sàcc ma waaw man nangam commencé nag bi gën a garaaw waxuñu wax de mais bi gën a garaaw mooy la nga jëfoon yépp nar nga ko perte ndax dinga fekk benn paa bu ñàkk solo ci koñ bi yore néeg boo xam ne lal sax amu ko der la fa lal teg fa ay sondeel nga ñëw di ko diis say soxla yow yaa ko ëppale lépp yow am nga kër au moins am nga laadum au moins am nga scooter au moins am nga oto au moins ñëw naa ko sama affaire bi loo ci mën mu naan la su ma la ko defalee mu feeñ nangam nangam nga nangu mu di la defal lu yàlla xaraamal xasira dunia wal axira perte nga àdduna perte àlla parce que sax gis-gis dafa gàtt li tam mu gàtt kii nga ñëw di ko ñaan dimbal moom bu amoon dimbal gën laa jekk gën laa jekk mais nga fekk ko foo xamante ne da koo luye amul sax lu mu ko fayee nga bëgg a yëkkati ko valeur bu toll noonu pour mu wëral la ko nu la koy wëralee moo tax li ma dégg démb ci tiktok dama rey ba sonn mais waa ji wax na dëgg nee na dafa doon bëgg a bëre ji am benn sëriñ bu ñu ko booleel mu fay ko xaw ma sept cent cinquante mille mu jëndloo ko ñaari bëy waa ji dem te suba sa moom lu mu doon seeti ñëw fekk sëriñ bi togg bëy bi moom njaboot gi ñuy lekk moo ko daa ful la parce que yaa dof di joxe ay bëy pour bëre moom mu daan bëy yi di la xaar yow it ñu daan la kon bul ñàkk sa ngëm ci sababu nattu waaye la la yàlla teg bu alal jar nga dem dugg ci géndal dañ maa sàcc mais ki ma sàcc dana xam maa ko gën a dee dem dugg ci liggéey pour liggéey ki la sàcc kii alal la la sàcc mais yow sàggan nga iblis bàyyi nañu sàcc sa alal mu sàcc sa ngëm ñaata ci ñun ñooy am problème bitig bi dañ koo sàcc nga dem ne naa dem bundu naa dem biir Casamance naa dem biir gaan gi ki ma ko def ma nangam ko jamono bi nga koy nangam ñàkk nga sa ngëm ñàkk nga ngëm yàlla nekkatoo jullit loo def jaratu ko wa min annaasi man yacbudu allaha ala xarf fa in asaabahu xayrun itma'anna bih wa in asaabathu fitnatun inqalaba ala wajhi borom bi ne xasira dunia wal axira allahu akbar su nattu ñëwee ndeysaan allahu akbar nga dellu ginnaaw dootoo julli dootoo jaamu yàlla léeg-léeg ñu sàcc la dara tàkkusaan jot ñu nodd gaay nañ leen julli ah julliwuma dara nangam nga foog yàlla mo fi nek di la garder say affaire waaw sa jabar tas ak salatu xayri min an nawm nga banku wat parce que amoko tek loxo loolu moy yàlla nañu yàlla musal mbokk yi wa in asabatu fitnatun qalaba ala wajhi borom bi ne xasira dunya wal akhirah te ki ñak aduna ñak al akhirah borom bi ne zalika huwa al khusran al mubin motax ñuy faral di ñaan ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به yàlla boo ñuy teg ay nattu yàlla boo ñu teg lu ñu àttanul gis nga nattu bu la yàlla tegee boo àttanul par force da ngay échec yàlla buñ ko yàlla teg moo tax jullit di ñaan yàlla boo may teg nattu yàlla bu ma teg lu ma àttanul parce que bugguma échec yàlla teg ma loo xam ni àttan naa ko mu yéegal ma waaye bu ma teg lu ma àttanul lan mooy loolu oto buy def 30 tonnes boo ci defee 70 tonnes wala 40 tonnes dina dem pneu yi day toj weñ yi yàqu oto bi tas loolu mooy wala tuhammil naa maa laa taaqata lanaa bi yàlla bu ñu teg lu ñu àttanu parce que bu ñu yenoo lu ñu àttanu rek échec dañuy daanu te mën nañ faa dàmmee am fa leneen dootuñu mën a jug mukk moo tax yàlla loo ñuy teg teg ñu lu ñu mën a àttan dana sabab nag fa tawakkal alayhi nga wéeru ci borom bi xaqa tawakkul nattu dina tax jaam bi gën a dellu ci yàlla soo gënee dellu ci yàlla sa xol set wecc inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla yaa ma moom yaa ma teg maa ngi dellu si ko wa talja ilayhi xaqal luju nga wéeru ci borom bi dëgg-dëgg wéeru wa tafham annaka miskinun yaluusu bi mawla nga comprendre ci dattu bi nekk yow ab miskin nga boo xam ni dangay ngay wéeru ci sa borom wa daifun yaljau ila alqawi al aziz subhaanahu ku néew doole nga koo xam ni yaa ngi wéeru ci boroom kàttan wa min fawaidil ibtilaa wa xikmati bokk na ci nattu dana wane dëgg-dëgg nit ñi ni ñu toll am na koo xam ni mënoo xam darajaam lu dul nattu ñëw ci nattu ngay xàmmee darajaam ndax jaam bi dana xam ni yàlla moo ko nattu moom du ko diisal yow mi ñëw mën nga koo diisal yow mën nga ñëw seetsi ko mu feebar yow sax ngay jooy mais moom mu delloo ko ci yàlla mën nga fekk ñu tëj ko ci kaso yow nga xool xaalam sa xol di metti moom muy xool xaalam di gën a sant yàlla ndax am na fa jamono yoo xam ni am na lu mu am fii ci kaso bi amu ko woon ci këram amaan na këram bu jógoon di naafile yenn naafile yi day bàyyi xel jabaram day bàyyi xel doomam day bàyyi xel dëkkandoom waaye tey fii yow rek ñeneen rek nga mën a wéetal sa borom mën a tàllal sa loxo mën a tadarru mën a delloo yàlla sa borom moo tax Fudayl ibn Iyaad doon wax ni annaasu maadaamu fi aafiyatin masturuun fa ida nazala bihim bala saaru ila xaqaa'iqihim fa saara almuminu ila imaanihi wa saara almunaafiqu ila nifaaqi Fudayl ibn Iyaad nee na nit ñi feeg ñu ngi nekk ci jàmm dañoo suturlu kenn du xam kuy kenn waaye nee na bu nattu wàccee ci la dëgg-dëgg nit ñi di feeñ ku nekk ci ngay xam ban genre la su nattu ñëwee yéefar bi jullit bi nattu dana ko saxloo ci ngëm waaye naafiq bi nattu dana ko yóbbuloo ci naafiq mbokk yi bokk na ci nattu day yar jaamu yàlla yi góor yàlla yi dëgg li ñuy wax natt moo leen di yar moo tax mënoo tudd benn góoru yàlla bu ñu naw lu dul jaar na ci façon natt boo xamante ni yow ñaanoo yàlla nga jaar ci boobu moo tax yàlla tànnal yonent bi sallallahu alayhi wa dund gu metti def ko mu nekk jirim ñàkk ndey ñàkk bàyyi ñàkk am am di dund ci ay fitna ñu génne ko dëkkam teg ko ay jafe-jafe yooyu yëpp li muy wane mooy yàlla da koy préparer pour mission bi la ci war a nekk ci ay wax yu ndaw kon dootu ko déranger moo tax bi mu jaaree ci formation boobu ba ñëw nekk yonente bu mat bi ñu ko xasee ne ko alal ji moomu ko sa ndey moomu ko sa baay moomu ko dafa taxaw muñ ndax déggoon na démb lu gën a rëy lii xam nga ki ñu saaga ndey saaga bàyyi nga muñ bis bu ñu ñëwee saaga la sa jëmm bopp yow waroo mer ndax xam nga ni loo rëy rëy sa bàyyi gën a rëy mais saaga woon nañ la ndey saaga la bàyyi nga muñ tey bu ñu la saagaa ci sa bopp wala sa doom <laughs> loolu du nekk dara moo tax formation boobu yàlla di ko defal duaat yi di ko defal sëriñ daara yi di ko defal ñi ragal yàlla ñi nga xam ne dañoo bëgg a nekk jagoo yàlla jagoo yàlla nag yombul waaye boo fexee ba nekk jagoo yàlla ba góorgóorlu ca dana dem ba ku la gis su jaamu yàlla jotee soo jógee mu jóg loolu la ñuy ñaan yàlla dem ba nekk li ñuy tuddee benn pilier boo xamante ni <coughs> yàlla may na la foo nekk su ne allahu akbar soo ne bërit jóg am ñu jóg loolu la ñuy ñaan yàlla nañ ko yàlla defal boo jógee am ñu jóg soo waxee am ñu wax soo defee am ni parce que defaloo sa bopp waxaloo sa bopp yàlla ngay defal yàlla ngay défendre metit woowu di la dal ci ay saaga ay xas ay tuuma ay kaso ay ñaawteef da lay yëkkati yëkkati yëkkati ba bis jot ba bis jot ku nekk di ñaan bëggoon a mel ni yow xale yi di ñaan bëgg mel ni yow xale yu góor yi bëgg baax xale yu jigéen yi di ñaan bëgg mel ni yow mag ñi sax di ñaan bëgg a mel ni yow day dem ba ñala bañoon démb bu ñuy wax mbaax ci sa kanam dootuñ ko tey ngay dégg kàddu gu nañu wax ko waaye buñ ñëw tëll seen na ne ay diw ku baax ku nangam ku nangam pourtant amaan na amul xol bu ko wax mais bi mu koy def tayu ko parce que yàlla moo lay tàmbalee récompense ci biir nit ñi parce que teg na la ay mbir nga di ko muñ lu ne ñu teg la ko lu ne lu ne lu ne nga muñ ko bu mu tax nga jàpp ni àgg nga déparagoo noonu ngay continuer xam nga kañ ngay àgg bu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al yaqin jour ba ngay àgg mooy jour bu ñu yuuxoo ne Umar Sall génn na àdduna wala Ibrahim génn na àdduna wala Muhammad génn na àdduna fa ngay njëkk amee teraanga ci bëtu nit ñi day njëkk feeñ ndax sonn gi nga sonnal yàlla yàllaa lay fay sa dëj ñéppay ñëw ku ko dégg day bëgg a teew te du xam lu ko tax a teew parce que yàlla mooy woote yàlla mooy woote sama jaam diw faatu na dem leen ngeen teewal ma ko ngeen seede ko dem leen ngeen seede ko su ngeen ko seedee danaa def su ngeen seedew dana waaye dem leen ku ko dégg loo jàppan da ko bàyyi borom bureau bu ca bureau bi eh diw gaañ oh xaaral dagg liggéey bi taal otom eh diw taal ñépp dajaloo da ngay xool ni wallahi jinne yi sax dañuy ñëw biir nit la parce que dafa am noo mel ci sa kanam borom mel ko ci société bi day dem ngay xool nit ñi ba doo xam nu mu toll moo tax Cheikh Isaac ibnu Taymiya bi mu génnee àdduna loolu jaaxal na nit ñi imaam Ahmad nee na yéen ñuy dund sunna li leen di àtte ak ñu dundul sunna mooy jour bu ngeen faatoo wallahi jour bi ngeen faatoo sa mbokk dana taxaw ni yaa laytani makaana danañ la teg nee sa jaat ñii di jooy ñii di ñaan nit ñi di wax da gis ku taxaw ne aka neexoon ma nekk néew bi xoolal xamoo lu ko yàllay defal waaye sa xel dal na da nga ñëw ci rob boo xamante ni wallaahi da ngay julli sa xel di dal ñuy suul nit sa xel di dal nga ñibbi sa xel dal doo am benn tiit mooy da nga jàpp ni kii yàlla àddina la koy fay te yàlla nee na ana inda zanni abdi bi sama jaam yi lu ñu yaakaar ci man loolu lay dogal moo tax liggéey boobu nag pour yàlla fay la ko mbokk il faut mu metti il faut mu metti Cheikh Nasiruddin Albani bi mu faatoo gars nee nañ li ñu seetlu ci dëjëm mooy comme li dëju imam Ahmad amoon nit ñi dañoo bare bare ba doomam sax mënuñu koo xaar Cheikh Ali Rachid miy nettali nee na moom dafa yaakaar ne amoon na ay ruuxaan yu ñëwoon amoon na yeneen mbindeef yu ñëwoon te xamuñu ñooñu nit lañu walla duñu nit nit ñi jéggi dayo jéggi dayo boo xam ni subhanallah yàlla nañ ko yàlla defal defal ko ñépp te mu nekk lu dëggu lan moo tax parce que amaan na fàttoon nga nopp nit ñi ci yàlla nee na amaan na fàttoon nga ñi ci yàlla nee na waaye bis ñëw na togg nga liggéey nga liggéey boo xam ne xale yu bari dañuy bëgg mel ni yow jaar xaaral ma daw ma jàng ma jéem a mel ni diw xaaral ma dem ma defaru ma jéem a mel ni diw xoola albaani tey daaxi bu nekk bëgg nga mel ni moom boroom xam-xam bu ne bugg nga mel ni moom xoola bun baal xoola sëriñ yu baax yi ci réew mi ah ku ñu fi yëkkati ak rek am nañu pare pour jéem a mel ni moom donte ñu bëri duñ ko nangu mais am nañu pare pour jéem a mel ni moom am na ñoo xam ne wallaahi ci seen dund dañuy ñaan yàlla nekk na ba jël sa tur yow di ko tuddoo loolu sant yàlla la sa tur la ñuy jël di ko tuddoo su ñu tuddee seen tur il faut ñu tudd la pour loolu nekk seen tamise moo tax ci nattu nga ko mën a amee mbokk yi bokk na ci njëriñal nattu nattu daf ñuy wan àdduna kër guy jeex la alaaxira kër gu def la borom bi ne wa inna daaral al axira la hiya al xayawaan law kaanu yaalamuun borom bi ne na alaaxira de day dund su ngeen xamoon àdduna mbokk dëkku coonal dëkku metit la ولقد خلقنا الانسان في كبد خما كوي سون سي ادنا كي جاب ني في دا فا ورا نيه مالوريزمان ني بري سي نداو ني لول لا نجاب تي شيطان دا لين دي نخ منو جار سي يون ني باخ فا ني جارون بور باخ nga bëgg koo dévier pour baax àdduna dafa am ay nitam alaxira dafa am ay nitam mbokk yaay toog nga def sa choix ndax sa choix alaxira la wala àdduna la ñaata ngay gis ñoo xam ne dañoo bëgg àllaaxira mais àdduna di leen soxlaal su ma ci joxe exemple maa ngi ñaanal ñi may bëgg a tudd sax yàlla may leen ñu tuub tey mënoo ni da nga bëgg baax a nga am nekk sa fans mënoo ko parce que nga am na àdduna utul àllaaxira faalewul àllaaxira dund ko tax yow lan nga bëgg a nekkee dana jël ballon d'or du ko jël tant de milliards lañ koy fay yaa ngi tardé moom mi ngi dem yaa ngi nelaw yow te yow da nga ne yow da nga bëgg a nekk nitu yàlla danga bëgg yàlla gërëm la ëllëg kee jaarul ci yoon bi kooku ngay waxtaanee foo toll kooku jaral na la bàyyi julli kooku jaral na la bàyyi naafila kooku jaral na la sax tudd yàlla ngay saaga di xuloo ci ay bëlingaam ay lamin yemal moodu yemal paate yemal yooyu ngay nekk sa àdduna yëpp ñoom ñu ngi jëm yoon bu bol yow nga topp leen te yow nga bëgg yoon bu baax non dañ la naan mbokk arrête arrête ñaar yi nga bëgg àndul de mënul nekk xol da nga ciy dugal lu lay jàllale ci sa diggante ak sa borom adduna la mën na am nga am ci tuuti mais bul yàq sa àllaaxira déedéet bul yàq sa àllaaxira même boo seetaanee football bu mu nekk ci yow lu la jaral tàmbeel la sooy seetaan leneen adduna la ndaw nga toll nga ci mais bu mu la jaral yàq leen mel même boo ci nekkee di ko def bul nangu mu jaral la yàq su julli jotee demal nga julli booy fubal boo nekkee sax ci ci centre billaahi wallahi avant ñuy woor benn waaye ñëw na fii indi doomam fii doom ji mi ngi mi mi ngi club jàmbaar te xale bu ñu xam mu indi doomam ñëw seetsi ma ñuy waxtaan mu ne ma dama bëgg nga ñaanal ko ma ne ko ci lan mu ne day jàng mais mi ngi ci école jàmba nangam nangam ma toog di waxtaan mu laaj ko ne ko centre bi est-ce que bu jaamu yàlla jotee dinañ la may nga jaam mu ne waa noonu effectivement foofu moom dëgg-dëgg ku bëgg a julli di nga julli ku bëggul nag gaa yi seen yoon nekku ci ma ne ko góor góorgóorlul ba loo munti nekk bu jaamu yàlla jotee na nga ko def parce que nag <laughs> décision bi décision yàlla la de du sama décision du sa décision pour nga nekk leneen ëllëg yàlla koy décider mais nekkal ci li la war yàlla subhanahu wa taala dana def lana bëgg mbokk yi yi ñu nangu te muñ te ñaanal ñi yàlla teg natt ci seen kaw ne nu muñ ndax léeg-léeg nit dinga dund te doo mën a muñ waaye yàlla indil la loo xam ne soo bëggee mu yomb muñ moo la ciy dimbale wasbir wa ma sabruka illa billah mbokk muñal natt bi la yàlla teg na yàlla rek tax nga muñ insha allah amaan na démb daan nga jàng alquran waaye tey bi nga wéetee ci kaso di nga ko gën a mën a jàng amaan na daan nga naafila tey bi nga wéetee dinga nga mën a naafila yëkkatil sa ite te xam ni day jeex léegi insha allah rabbi mbokk yi ñu xam ni yonante bi sallallahu alayhi wasallam nee na natt bokk na ci li koy dindi mooy ñaan te ñaan yàlla foo toll yàlla mën na la teggil يونت بي صلى الله عليه وسلم ني لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء عباد الله يونت بي نينا مونتو مونتا تاخا موتي سي دوغلو يالا مويتو تاخو لا موتي داخ لي نيو يالا كوي ساني بو ني سي سا كاولو جام مويتو تاخلو nga موتي لول موم بو يابو ني خامكو واي نك نينا na xam ne natt bu ñëwee nangeen ngeen takkoo ñaan fa aleykum bi du'a te ñaan mbokk yi dafa nekk lu am solo ñaan googu mbokk su fekkee natt day faral di ñëw bokk na ci wallaahi ab ñaan a ngi boo xam ni lépp luy ittey àdduna moo xam da nga tiit moo xam da ragal moo xam danga nga jaaxle moo xam say projet da nga bëgg yàlla sottalal la ko moo xam say jafe-jafe da bëgg yàlla defaral la ko moo xam moo xam moo xam moo xam président bi ca palem ministre bi ca primature député bi ca fa mu nekk ca assemblée kenn ku nekk dana am jafe-jafe bu la jaaxal waaye wallaahi billaahi tallaahi du'a mustajab laa lay jox ñaan boo xam ne insha allah buy nangu la ndax mujarrabun an ñaan la boo xam ni ñu ko def ñépp gis nañ ko yàlla na la yàlla boole ci ñu koy gis mbokk yi jullit day ñaan natt bu dikkee bu dikkul nga am projet bu la jaaxal jullil su jootal nga def ko wala nga ut waxtu ñaan yi def ko fexel nako ko sa làmmiñ tàmm tàllalal say loxo boo paree bul raay sa kanam ndax raay kanam ci ñaan bokku ci allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati wa altaji'u ila hawlik wa quwwatik allahumma a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wahdini wa yassiril huda li bokk yi ñaan bii wallahi ku am soxla dee ko ñaan yàlla nit ñi nag di ngay ñaan léeg-léeg nga foog ñi nangul fekk nangu na am na la muy xeex waaye léeg-léeg nga ñaan te nangul jàngataatal sa bopp lan moo tax sa ñaan nanguwul est mel nga ni nga war a mel ba ngay ñaan ndax lekk nga lu lew ndax li nga naan lew na ndax li nga sol lew na ndax defoo bàkkaar bu rëy yii boo am boo ci muccee bi idnillah soo ko ñaanee yàlla dana la ko may bu la neexee dee ko def ma takraar ko mooy allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati wa altaji'u ila hawlika wa quwwatik allahumma a'inni ولا تنصر عليّ اللهم أعني ولا تنصر علي اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي نيان كو بولا نيهي بوي تد نيان كو ان شاء الله امنا دعاء براء ابن عازب موم موي دغال نيان بي waye ñaan bi ulama sunna yépp saxal nañ ni ñaan la buy nangu biir nillah ان شاء الله بنن يون دينا نيو تي نيانو برا ابن عاذب اللهم هدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الشكر حتى ترضى ونحن عبيدك رقة اللهم يسر لنا كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم